la démé donc Amadou mam Diop moy ami intime ma ci fay Ah ami ami intime la en 65 le djoutou dégoul français donc c'est des gens yo xamni ni ma indi len ay ay affaire parce que ñom ñop non lañ mel sen chauffeur dañuy lekk sen lepp dañuy lekk mi ngi ni japp len ñu après le rapport de la cour des comptes un scandale te turu gis nga gel bi kenn du tudd turam <laughs> Binta Diop kenn doo ko dégg fenn def katu ñaaw téef mi ngi ci lépp lu salte la dynastie Faisal, mais kenn du ko tudd ami intime ak ñoom madame Faye dañ leen di protéger buñ la buñ kon sa kër sax ray leen di ñëpp dañ leen di protéger donc cour des comptes Nena, un scandale à l'hôpital MAM Abdul Aziz ici de Tiwawon un déficit de 60 millions de francs CFA noté dans la gestion alors que certains parlent de détournement la direction de l'hôpital reconnaît Mom Binte Diop Badiane reconnaît un écart de trésorerie mais préfère attendre la contre-expertise demandée par le conseil d'administration yéen a ngi dégg de soixante millions la rakk Amadou Mame Diop muy Binta Diop seyal ci kees ba rapport Cour des comptes moo ko wax soixante millions de francs CFA notés dans la gestion d'accord yu dem docteur Binta Diop Badiane la sœur de Amadou Mame Diop diplômé en gestion des services de santé en qualité hospitalière bla bla bla parce qu'il faut affaire attention il lire CV internet bi ne amul buntu amul bac ci ci ci ci ci CVM gis mu wax la expert la comptable nangam nangam ñu bind nga donc bàyyi len di lire gars yi kum neex bind man mangi, ni mangi Canada buma ma neexee su bind sama CV bon mola Morgan, professeur euh, littérature à l'université de des Trois-Rivières j'ai été là-bas après j'ai fait une formation un extraordinaire de des satellites universitaires à à à l'université euh, de de Montréal lo ci mën lo ci mën tara fenn rek journalistes yi bu ñuy wax ci ñoom ay fen dañuy dem ci internet ba dem jëli ñoom lu ñuy bind mais internet ba kay ken bindul ñom bind ñom ñoo jox seen boy euh, euh, informaticien mu tapel leen bindal ma luma neex mu bindal leen luma neex leen di lire fofu ay kat lañ de donc journaliste yi nga xamni ay journaliste lañ fait duñ gëstu information dañuy tok fu leen neex waa ñew def ben CVM wax lu ko neex nga copier ko Massaly jangut ñom ñëpp ay faux amuñu sax diplôme ay faux diplôme lañu yor certifié yuñ certifié wu ne ku mu neex man mii nekk fi Canada mais buma ma neexee ma Ohio am jarna université ba ko ci mën dara suba suba mënu ma nekk ministre Ohio jarna fa. j'ai fait l'université de Ohio dugg ci internet bi j'ai fait deux ans là-bas de euh, euh lu mu accéléré étude accélérée j'ai eu le le le le DAI le CEA ñëw di leen fowee <laughs> benn dul naa li si dugg rek bind oui mola Morgan il paraît que en 2000 2019 2020 jang dix neuf na Ohio dem na fa l'université de Ohio promotionnaire premier moko ko mo jël ci kaw mo len mën en relation internationale nangam nangam <laughs> te yanguñu gaa yaa ngi nii bu ñu gis masali nee nañ doctorat en en relation internationale. nii la ñu dëkkee ñun nii ay fenkat yuy jàngut fen rek dul ba dajale trafiquant de personnalité moo tax ku moytuwul journaliste yi fen rek boo leen demee ngeen gis ñi bindal leen mëcuucu dafa jàng ne arte mëcuucu jàngut jaaykat la woon mëcuucu won nañ leen ko te pourtant mëcuucu jàngam soriwut université dafa fa deux ans cartouché génn jaay na ruyu xale pii pii ruy xale yaa ngoog chaise chaise yi weñ toog fukk taat fukk taat fukk taat fukk stade stade ku bëgg a toog taat fukk taat fukk taat fukk def na ta war gaynde taxi taxi ma cuucu te xoolal tey ministre la boobu ba léegi mi ngi fi toog di fen di sa di laal jigéen yi di fen di sàcc di xoolal ñu bindal ko ni ma cuucu moo dàq jàng ci Afrique sowu jant te boo génnee li ma cuucu traîné ci mbedd yi li mu jaay lu mu def toog fukk lu mu nekk war gaynde chauffeur war lu mu yor chauffeuru euh, camion frigorifique di wër ci luuma yi di jaay ay gejj lu mu taxawaalu défoncé jaay na fa ay quelques mooy rangumaan yi nekk défoncé ma cuucu def na loolu défoncé ma cuucu def na rangu rangu na ay faaru oto di wër di di jaay jaay na géej ci luuma

Précédemment, directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Kafrine est nommé directeur de, l'établissement public de la santé numéro 1. Donc, Macky Sall, par décret, mon nommé qui nga pas de Rak Amadou docteur Binta Diop diplômé diplômé en gestion des services de santé en qualité hospitalière L'olip de dafa guddal rek dara docteur Binta Diop Rak Amadou diplômé en gestion des services de santé et en qualité hospitalière lan ngeen mën comprend, comprendre ci lan ngeen précédemment directeur de l'établissement public de santé de niveau 1 de Kavrin, de tous les hôpitaux du Sénégal concentrés globalement est nommé directeur de l'établissement public de santé numéro 1 Abdou Aziz Sy de Tivaouane en remplacement de M. Abdoulaye Fall appelé à d'autres fonctions nii lañ ko falee mooy ki ma lay wax nii ay xale dee fa ay liir lakk fa boo xëm kooku ba léegi mi ngi fa toog buusiwut ñaari yoon lañ ko woo nax sénégalais donc pour ngeen comprendre ni nous la ñuy foowee sénégalais yi donc lii nag mun nañ ko fee jëlee ah parce que Seydina Muhammad ñii du ñu yàlla du ñu yenent ñii ëpp ñu ñu doole ëpp ñu ñu fit ñii lu ñu bax ñun dañ koy ñer ndax ñii ñoom ñoo am lu ñuy ñàkk mais ñun amuñu lu ñuy ñàkk dañuy dem bu fin fond dañuy dem gar suñu bakkan jaayanteeg ñoom reyanteeg ñoom affaire bi day dakk day dakk day jeex kon wo won naa leen par contre won naa leen ki nga xam ne Malick sekk rakk Marème Faye Sall est-ce xam ngeen lan la yore woon studio Dakar studio Malick Seck xam naa ko te studio da la yoroon studio musique wallahi la azim <laughs> studio boo xam ne benn ordinateur dafa newoon ñaari baaful tey Malick Seck mënu ma ko teg bët nii ma tey Malick Seck mënu ma ko teg bët ngantam maami ay oto ngant oto yu day ni inna ma ay oto yi jar cent cinquante millions deux cent millions la Malick Seck yor Malick sek tey jii mooy chapeau ñi ngi ci kaw el mooy ñoom mooy capot yi capot yi ñi nga xam ñoo jiite Sénégal Malick Seck bu yoroon studio Ndakaaru Njaay studio bu ndaw barke alxuraan da nga fay dugg doo sax ma envie enregistré Malick Seck mii tey ponkal la ci Sénégal <laughs> tey ca gala ndax ponkal mënoo tudd cinq ñu gën a ponkal Sénégal ñu ëpp alal Sénégal ñu dàq sàcc Sénégal te doo ci boole Malick Seck Amadou Amadou Ndom liggéeyut wax Amadou Ndom ba <laughs> opérateur économique la jënd indil genre bien protégé ñu sàcc ay milliards maram Faye coiffer len protéger len xol ay milliards ne duñ taxaw Sénégal donc nous devons nous lever pour sauver ce pays-là. Nous devons nous lever pour sauver ce pays-là. Lolo rek moñu ci mëna génné sinon ñun on va au risque de mourir. Ñun ñëpp dañuy dé dañuy ray. Donc il faut nous sauver wu. Xol Mbirum bi ok ñoom seen benn doom tëjuñu ko ñoom